salaamaaleykum mbokki téléspectateur 28 Pro TV nuyu nañ leen jaar nañ leen ku nekk na xam na ne ñu ngi ci préparation Coupe d'Afrique bi ba tax na damay ànd ak sama caméraman ñu dugg si biir xool gars yi nu ñu préparé match bi. waaw Sénégal damaa leen ñaan Coupe d'Afrique bi maanaam nekk Coupe d'Afrique bu mbégte ñaan yàlla at mi nekk 2019 ñu féete ko Coupe d'Afrique bu neex yàlla defal ñu ay mbégte yu baax ñaan nag ñu bañ nag lu ñu daan dal chaque année ñu bañ mu dal ñu. lu a am ñu naan ñun ñoo teg suñu bopp wala ñoo teg suñu bopp defet bi nan fexe góorgóorlu li yooyu moom jàmbaar la li koy def ñu ngi football ñu ngi entraîné ñu ngi def li mu war a def. waaw dañuy ñaanal Sénégal yàlla ko yàlla may ndam rek waaw na ko yàlla may ndam may ko feex ba mu indil ñu bi rek loolu daal la ñuy ñaan waaw bi moom am nañ ci yaakaar niñ ko gisee am nañ ci yaakaar trop trop trop xaw nañ tiit nag ndax pré match bi Sadio Mané du football waaye mën na am euh, yaakaar am na ci bu baax daal ñaan yàlla yàlla leen yàlla may ndam loolu daal la ñaan yàlla ñu jël coupe bi indi ko fii Sénégal ñu féete ko. loolu daal li ñuy ñaan yàlla bu soobee yàlla waaw loolu am nañ ci yaakaar daal bu baax. am na ñuy joueur nag mais course bi moo xaw a mooy xaw di nelaw tuuti quoi soo amoon course moom coupe d'Afrique bi moom lu taxaw ak benn équipe. maanaam joueurs yi qualité joueurs yi ñuy wax moom yëpp am nañ ko quoi mais bu joueur bi yeewoo moom mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa am dara quoi waaw bu course bi yeewoo mën naa am dara waaw dañuy ñaan ak jàmm rek ñu ñu ñu jéem a xam rek tooyal maye quoi waaw dem ba jax tàkk. mais nag stade bi seen ginnaaw la leen ñaanal yàlla jàppale leen te bañ a ŋaañi kenn te jubóo seen bopp te xam ne lii moom foo agré la suñ ci déggoo rek yàlla mu na leen jàppale waaw ndax ndam moom yàgg nañ koo sàkku te leen koy xañ moom xëy na mën naa bañ a doon ñàkk fubal ñàkk déggoo lay doon kon nañ gën a góorgóorlu déggoo seen biir te jàppalante te xam ne li foo agré la te kenn ku nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom te xam ne match bi moo leen boole ndam li ngeen di wut tamit Sénégal moo leen ko boole mu leen ko séddoo jëm fenn fu biir Sénégal kon ngeen booloo déggoo am gëm-gëm bi xam ne ndaw ñëpp ñu seen ginnaaw ak mag ñi ak ñëpp ñu seen ginnaaw yaakaar leen te leen dooleel te ñoo ngi leen di ñaanal yàlla defu leen ndam lu set wecc ngeen andi coupe d'Afrique bi ñu feete ko 2019 yàlla Sénégal jëm kanam na ne compétiteur boo na compétiteur suyér mu andi Salif Saare na Salif Saare saison la ko am na na mais amul compétiteur ndax dafa tëddoon lu yàgg ndax dafa blessé woon suyér moom compétiteur na wax moom Ah, xamul ku mën a fubal ko xamut a fubal compétir lay war si joueur joueur bu compétible moom mooy loolu quoi. te ñaan Sénégal fi mu daan fu mu daan am mu am lu ko mu gagné lu ko ëpp ci barke Alxuraan Karim yéen nañ leen ko trop euh, yàlla defal leen lu koy suñ ko seen gort ci coupe d'Afrique bi kon mën ngaa gagné te yàlla yal yàlla na ko gagné ci barke Alxuraan